من الله وفتح خريب وبشر المؤمنين برمنا الله دين جاي الله أكبر allahu akbar allahu akbar الله أكبر allahu akbar الله أكبر الله أكبر আল্লাহ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 allahu akbar Allahu Akbar. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله di balu ak ñep ñoo xamni ngi ci daje bi di bal ak ñep tay ñaan yalla bo lañu jéggal mu melni dama doon wax boobu gannaaw bu nu jiitalee sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala. nee na gannaaw bu nu jiitalee sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala. tey julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. nee tey julli ci alayhi wa salaam. wax ngi siyaar mboolem koo xam mi ci jataay bi teew. sëriñ bi nee na ma siyaare mboolem ku ne ci jataay bi. di ci siyaar bi ak nuyoo bi. sunu sëriñ bii toog. nee sunu sëriñ bu baax bii nga xam ne mooy xalifab sëñ Aliou Kane Mbalem. nga xam ne mooy xalifab Seydina Aliou Kane sëriñ Souleymane nu ngi lay siyaare. sëriñ Souleymane Kane sëriñ Assane ne ma ngi lay siyaare. di siyaare li nga jaboote lépp. nee di siyaare nag li nga jaboote lépp. te nun nu bokk ci. nee te nun nii di wax nu bokk ci. ak ñi teew nii. ak ñi teew ñëpp di ziar Cheikh Modou Fadal mi ne di ziaré Cheikh mohamadou Fadal kan mu bax mi tok Serigne Baye Cheikh ngi tok ni ne Serigne Baye Cheikh kan mu Serigne Mor kan mu ngi ni tok Serigne Abdoulaye Ahad mi ngi ni tok ne Cheikh Abdoulaye kan mu bax ma ngi ni tok ak njabootu Serigne Aliou kep Serigne Mandiaga ne ak njabootu Serigne Aliou kan kep Serigne Mandiaga ngi ni tok buñu len nuyo ba nopi siyaare len ne buñu len nuyo ba nopi siyaare len nak bala ñu dugg ci ne bala ñuy dugg ci. sababu daje bi. sababu daje bii ñu daje tey. nu ngi leen di jégalu. ne nu ngi leen di jégalu nag bu baax a baax. waxtu takkusaan. ne waxtu takkusaan. moom laa doon jëkkanteel. ne moom laa doon jëkkanteel. ndax lii. ne ndax li ñu doon def. naafila la. naafila la. te takkusaan gi. ne te takkusaan gi. day farata. ne day farata. mënee su ko jiñ. ne mënee su la jiñ takkusaan. te lum nu fekk. ne te lum nu fekk nag. dañ ko war a dagg. ne danoo war a bàyyi loola. waaye war woon a taxawal julli ji. a taxawal nag julli ji. te agsi woo. ne te agsi woo nag sang bi. ndax yaay suñu kilifa. ndax yaay lii rek ay bu ne lii képp mooy sababu. ma ñëw ma ñëw fekk heure bi sori fekk heure bi sori lool ndax trois heures laa waxoon ndax trois heures laa waaye comme jot na ne waaye kon nag jot na suñ digganteeg julli ne suñ digganteeg julli daanaka fanweeri minute fi des daanaka fanweeri minute ci des ñu gaaw def ko ne ñu gaaw nag def ko ndax moom ne ndax moom salaatu tas bi salaatu tasbih laa bëggoona laa bëggoona ubbee ubbee jataay bi jataay bi damay faral di wax ni ne moom day sëñ Asan day faral di wax ni te yonent bi ko alayhi salaatu wasalaam. nee te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. kër. nee kër. wala néeg. wala néeg. bundul jaamoo yàlla. nee bundul jaamoo yàlla. moo ko armé la yem. nee moo ko armé noo yem. sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. ma bëggoon nak nee ma nag sëñ Assane ma bëggoon nak sama jëkk a yendu sama jëkk a yendu ci kër gi ma sama jëkk a fanaan wala sama jëkk a ci kër gi ma ak yalla ba nak nee ma ak yalla ba nak sun borom tawaraka taala sun borom tawaraka taala sabbal ko sabbal ko su jotal su jotal ko doga dogo fay sañ sañe yendu ne dafa fay fee sañe yendu dog fee sañ yendu dog fe. dog fee sañ yendu wala ma dog fe fanaan wala ma sañ fee fanaan serigne daouda ngi ni ne serigne daouda kan a ngi nii toog sëriñ Mamadou ndjay kan a ngi toog Mamadou ndjay kan ngi nii ñoom ñëpp ci njaboot gi lañ. nee ñëpp ci njaboot li ñu doon def nag. nee li ñu doon def nag. Mhm. Mhm. li doon def nag. waaw tax ñu def ko. nee li tax ñu def ko. yonent bee ñu jox ndigal. nee yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu jox ndigal. Serigne Makhtar Jaxate. Serigne Makhtar Jaxate. moom Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Saliou Mbacke. fu ngeen mës a gis Serigne Saliou. mais fu ngeen mës a gis Serigne Saliou Mbacke. bisu xew-xew. bisu xew-xew. ka yor micro ba. waxukaay ba. bu sëñ bi waxee mu wax. mais bu sëñ bi waxee mu wax. mooy jëm ji mooy jëm ji toog Cheikh Makhtar Diakhaté. bokk ak moom njaxate. nee bokk ak moom nag njaxate. jaay loola. nee jaay loola nag. jënd ko ak taalibe. jënd ko ak taalibe nag. sëñ Saliou doyloo woon ko lol mais sëñ Saliou Mbacke mu bax ma doyloo wo ko lol defon nako chef de village Touba. mais defon nako it chef de village Touba. diirub mi fi nek mais diirub sëñ Saliou bi fi nek mi ngi ni tok ci jotaay mais mu ngi ni tok ci jotaay. bàyyi ko Touba bàyyi ko Touba. bàyyi ko Touba. and ak njabotam jep and ak njabotam jep ñew ñu ko siyaare. ñu ngi lay siyaare jaxate bu baax. bu ñu ba ca mujjo ne bu ndeme ba ca mujjo bu ñuy def cant yi. ba ba ñuy def cant yi. ñu doog a ne ñu def ñu soko a waye ñu jëkkante ak heure bi. waaye ñu jëkkante ak heure bi rek. ma ngi wax ci démb ak barki démb. nee ma ngi wax démb ak barki démb. saxaabatu yi ma yàlla booleel. nee saxaabatu yii nga xam ni ñoom la yàlla booleel. ñu jébbulu ci man. nee ñu jébbulu ci man. ñii di ay xarit. nee ñii di ay xarit. ñoom itamit. ñoom itam. ñii di mbokki julli. ñii di mbokki julli. soppe. ci réew mi ak bitim réew ak bitim réew. weer wii ñuy dugg. di rajab. di rajab. dafay wa am doole. nee day weeru am doole. mooy anniversaire julli. mooy anniversaire julli. ci la julli xew. nee ci la julli xew. ci weer wi. nee ci weer wi. ci la sëñ Fallou Mbacke xew. nee ci la sëñ Fallou Mbacke xew. waaye ci weer wi. nee ci weer wi. gane gi yàlla gane gi yàlla ci la xew ci la xew muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam subhaana lazi asra subhaana lazi asra bi habdihi bi habdihi layla layla min masjidil haram min masjidil haram ila al masjidil haq ila al masjidil haq guddi gi ñu dëgmal mais guddi gi ñu dëgmal sunu kanam sunu kanam kon julli na kon julli ak nganuk yonent bi ak nganuk yonent bi ak sëñ Fallu ak sëñ Fallu ñoo bokk anniversaire mais ñoo bokk anniversaire yonent bi alayhi salatu wasalam mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mujj dundam. ne ci mujj nekkam. matul ñetti fan. ne matul ñetti fan. wala ci semaine bi bokk. wala bi lay doon. la toog ci jataay. ne la toog ci jataay moom yonent bi. jekki jekki jekki. jekki jekki jekki. tàngooru métti dikkal ko. ne tàngooru méttee métti dikkal ko. ba mu ñaq. ba mu ñaq. xam naa boobu mi ngi ci feebar. ne xam na ni boobu ma ngi ci wàccaay. ndax fukki fan ak ñeent. ndax fukki fan ñeent. la tawat la tawat. wuy ji boromam wuy ji boromam dimanche la ko tàmbali dimanche la ko tàmbali mu delsi mu delsi delsiwaat delsiwaat ca altine ja ca altine ja mu dem mu dem ci la jibril feeñu ne ci la ko jibril feeñu ci tangoram woowu ci tangoram woowee ne ko sa borom moo ma yónni ci yow ko sa borom moo ma ci yow asa wa jalla asa wa jalla tabaraka wa taala tabarak wa taala yonent bi dëngal ko noppam yonent bi jox ko am noppam lan la wax ni ko lan la sunu borom wax mu ne ko sa borom moo ni mu ne ko sa borom moo ni naa la wax ni la naa la wax ni la am na benn occasion. am na benn occasion. bu baax ci bu baax ci ak jullit yi. ak jullit yi sa ginnaaw. sa ginnaaw. ndax. ndax seen fan guddul. seen fan guddul. te seen sàggante bari te seen sàggante bari de. mu wax ma ni ma nee mu wax ma ni ma man jibril li ngay bax bax yow ya rasulullah li ngay bax bax ya rasulullah li ngay matal matal sa diine li ngay matal matal sa diine waye bo fi bayiko waye bo fi bayiko ko ñi nga fi bax ñi nga fi bax jox leen cadeau bi ne jox leen cadeau bi buñ ko liggéeyee ne buñ ko liggéeyee ana melni yaangi tew ngi teew dana mel yow yaangi tew duma du ma leen topp àdduna bakkaar du ma leen topp àdduna bakkaar du ma leen top alakhirah du ma leen topp alaxira bakkaar mooy lan moy lan salatu tasbih salatu tasbih mu diktel ko ne mu diktel ko niko din ko wara a din ko wara a ci saase ci saasa ci la woo way juróom ci woo way juróom bu ñuy wax Abbas bu ñuy wax bàyyi la ci moom bàyyi la ci rasul moom bàyyi yonent bi ñoo bokk bàyyi nee moo bàyyi yonent bi ñoo bokk bàyyi mu téye mbaggam nee mu téye mbaggam xëcc ko ba mu jige ko xëcc ko ba mu jige ko mu fab gémmiñam mu fab gémmiñam teg ci noppam teg ci nopp bàyyi bi ni ko sama papa ni ko sama bàyyi sama bàyyi sama bàyyi maa ngi lay dénk maa ngi lay dénk loo xam ni loo xam ni soo ko manee soo ko manee bu ko ratee bu ko ratee benn benn benn bis ko def na nga su xatee ci yow ba xat. nee su xatee ci yow ba xat. ba ko ba mënoo ko. chaque semaine. nee ko def benn yoon na nga ko def benn Rik Abbas. Rik Abbas. soo ko mënul semaine bu ne. boo ko mënul semaine juróom benn weer weer wu ne. weer wu ne. na ko na nga ko def. na nga ko nekk par weer. nee juróom benn ni. juróom benn ni. weer yu ne. juróom benn weer yu ne. na nga ko def. na ko def. su ci xajut su ci xajut. nga seet sa sa giiru nga sa giiru dund. nga def ko ci benn yoon ko ci benn yoon. muy salaat tasbih. muy salaat tasbih. naka lañ koy defee. naka lañ koy defee nag. ñetti téeméeri sabbal. nee ñetti téeméeri sabbal. yoo xam ni. yoo xam ni. julli lay doon. nee julli lay doon. ci waxtu woo xam ni. ci waxtu woo xam ni. manees na faa naafila. manees na faa naafila. mu nekk ñeenti rakka. mu nekk ñeenti rakka. jenn taaya lay am. nee jenn taaya lay am. mooy ni ñu doon def. mooy nii ñu ko doon def. rakka bu nekk. rakka bu nekk. juróom ñaar fukki sabal. juróom ñaar fukki sabal. ak juróom. ak juróom moom la war am. moom la war am. boo kabaree rek. ne boo kabaree rek. ku nekk ci yéen na jël. ne ku nekk ci ñun na jël loolu ci. pour ëllëg ndax pour ëllëg. dafal. ne dafal. subhanallah. subhanallah. alhamdulillah. alhamdulillah. allahu akbar. allahu akbar. لا إله إلا الله لا إله إلا الله صوت من تقنك صوت من تقنك لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله علي لازم إلا علي لازم يقنا باخ يقنا باخ أي سومن لا حول ولا قوة أي سومن لا حول ولا قوة يملت سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله fukki yoon جوم juróom nga koy def. nee fukki yoon ak juróom nga koy def. boo kabaree su ko jàllee su ko jàllee nga rukkoo nga rukkoo def ko fukki yoon def ko fukki yoon sigiru ko sigi sigiru ko def ko fukki yoon def ko fukki yoon sujoot sujoot def ko fukk def ko fukk sigi sujoot sigi sujoot def ko fukk def ko fukk sujootaat sujootaat def ko fukk def ko fukk sigi sujoot sigi sujoot def ko fukk def ko fukk xam nga foofu xam nga foofu bu doon yeneen julli bu doon yeneen julli amul toogaay amul toogaay premier rakka kenn du toog ci deuxième. premier rakka kenn du toog ci deuxième. ca deuxième sujjóot kenn war faa waaye bu dee bii. waaye bu dee bii da toog. da ngay toog jàng ko fukki yoon. jàng ko fukki yoon doog a jóg. doog a boo ko limee. boo juróom-ñaar fukk ak juróom la. juróom-ñaar fukk ak juróom la. juróom fukk juróom. fukk ak juróom ci kaw. ci kaw fukk fukk. ci rukkoo ci rukkoo fukk fukk ci siggi rukkoo ci siggi rukkoo fukk fukk ci sujjoot ci sujjoot ci siggi sujjoot ci siggi sujjoot fukk fukk ci sujjootaat ci sujjootaat fukk ci siggi sujjoot ci siggi sujjoot da ngay am juróom-ñaar fukk di nga am juróom-ñaar fukk ci ak ak juróom ak juróom nga defaat ko beneen rakka nga defaat ko beneen rakka defe defe ko noonu foofu da waroon a taaya foofu da nga waroon a taaya ci ñaareelu rakka ci ñaareelu rakka waaye doo taaya de waaye doo taaya subhanallah bi ngay jël subhanallah bi ngay yoon rek fukki yoon rek jóg taxaw jóg taxaw andi ñettelu rakka bi indi ñettelu rakka bi defe ko ni ma ko waxee ko nonu ma ko waxee andi ñeenteel indi ñeenteel defe ko ni ma ko waxee ko nii ma ko waxee boo boo fukk yu mujj yo ya bo defé fukk yu mujj na ba nopi ba noppi ngay doog a taaye ngay soog a taaye kon jenn tayé la kon jenn tayé la muy ñett téméri muy ñett téméri subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah wala hawla wala hawla wala quwwata wala quwwata illa billah illa billah al ilasim al ilasim خادم المصطفى ني نعم، خادم المصطفى شنو واجب شنو واجب دا فا واخني دا فا واخني با تيغن با تيغن boo defee rakk bu njëkk bi boo defee rakk bu boo jàngee Fatiha boo jàngee Fatiha jàngal sa bisma jàngal sa bisma doo sabal doo ko sabal rakk ñaareel bi boo defee Fatiha boo defee Fatiha jàngal Isa Sutura jàngal Isa Sutura doo ko sabal doo ko sabal rakk ñetteel bi rakk ñetteel bi boo defee Fatiha boo defee Fatiha jàngal ko sabal doo ko sabal ñeenteel boo defee Fatiha defal lexlaas defal lexlaas la sëñ Tuubaa mom nak luma wax. ne mom nak sëñ touba luma wax. mo gën. mo gën lu leneen wax. lu keneen wax. waye waye alquran alquran amul sarit ne amul sarit sar yëpp a sar saar yëpp ñooyam. li l'ikhlas man. li l'ikhlas man. la falahi man. la faa man moom la naasi man. moom la naasi man noo bokk benn téere. mais noonu noo bokk benn téere. ku ci gën rek. ne ku ci gën rek. téeméeri saar yi. téeméeri ak fukk ak ñeent. ak fukk ak ñeent dootu mat. mais dootu mat. alxuraan benn la. ne alxuraan benn la. yow mi ko bëgg a def. yow ko bëgg a def. saar woo def baax na. saar woo def baax na. terewul nag. terewul nag xaadim rasul lii la wax. xaadim boobu nag lañ def ak yéen ñii. mais boobu lañ def ak yéen ñii. muy li gën gën li gën lépp la. yonent bi ni. ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni. ku ko defee nii nu ko defee. mais ku ko defee nii nu ko defee. bul sikki sàkkani. bul sikki sàkkani. salaamaaleykum. fa salaamaaleykum. sa xalim ak far bàkkaar nee sa xalim ak far bàkkaar daw na daw na ci ba ci këyit bi ñu bindoon sa bàkkaar nee ci këyit gi ñu bind sa bàkkaar effacé nañ la lépp kenn toppatu la dara kenn nga ko defee teg na ci sax boo génnee teg na ci sax boo génnee candidat nga candidat fukki nit ñeent fukki nit koo dajal ku koo dajal ku ne su bëggee ci yow bu bëggee ci yow dem àjjana dem àjjana loolu nak né loolu nak yeen ñi yeen ñi sopp sëriñ Assane sopp sëriñ Assane kan Nek nek ci réew mi nek ci réew mi ak bitim réew bitim réew sama yene né sama ci moy ñepp dem aljana moy ñepp dem aljana motax ma def ko motax ma def ko fi ba ca desit né ba ca desit mu wax ni mu wax ni mom rasulullah mom rasulullah barab boo musta mooyee yàlla. barab boo musta mooyee yàlla. boo ko ñaanee yàlla mu nangu la. boo ko ñaanee yàlla mu nangu la. boo ko jaamoo mu nangu la. boo ko jaamoo mu nangu la. yéen ñëpp. la. yéen musta mooy fii. ñun nag bu tuddee mooy fi mos a ñëw. fi mos a ñëw. kon kenn tooñu fi yàlla. mais kon kenn yàlla. nangul na leen. kon na ngeen wax yéen. mais kon nun nanu wax ni. ànd ak man. ànd ak suñu santan. ñeenti baat yi may wax. mais ñeenti baat yi may wax. واحد الأحد واحد الأحد الحمد لله الحمد لله حق حمده حق حمده الحمد لله الحمد لله على كل حال على كل حال الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخس لم يتخس صاحبة صاحبة ولا ولد ولا ولد ولم يكن ولم يكن له له شريك في الملك الملك ولم يكن ولم يكن له له ولي ولي من لسن من لسن وكبره وكبره تكبيرا yàlla nangul nanu bu yàgg yàlla nangul nanu bu yàgg yàlla na ngeen mucc tey ak ëllëg yàlla nanu mucc tey lépp lu dim ndox ci lépp lu dim rasul barakallahu la ca nag nee na la ca sant rek nee sant rek julli gi noppi na nee julli gi noppi na ñaan gi noppi na ñaan gi noppi na na ngeen ko jël nan ko jël ku ko baril nag mu ko mën a baril moo gën addi yonent bi alayhi salaatu salaam nu ngi gërëm bu baax Baye Cheikh. ne sëñ Assane ne nu ngi gërëm bu baaxa a baax. ñi doon liggéey liggéey bi. ne ñu doon liggéey liggéey bi. di jital suñu sëriñ bi tok ne di jital nak sëriñ Souleymane kan bu baax ni yalla na fi gëna yag yalla na yalla yok te yalla wërël la. Assane ne yàlla na yalla yok te wërël la. man nekkuma fi. ne man day ñewuma fi. sëñ Makhtar. Matar kii mooy sama xalifa. ne kii mooy sama xalifa. dafa woyof lool. ne dafa woyof lool. sëñ Maxtaar Jaxate. sëñ Maxtaar Jaxate. sëñ Souleymane Kan bis bu yàlla sàkk. ne bis bu yàlla sàkk. mu sippi dara jaam. ne mu sippi dara jaam moom sëñ Souleymane Kan man man topp ma sax ci moom. ne man day jigéewu ma sax ay atam. ñu bari dox sama diggante ñoom ñu bari bari dox na sama diggante ak seen waaye waaye dafa xaw lépp teg ko ne waaye dafa jël loolu lépp teg ko ne mook mook liggéeykat yi ñe mook liggéeykat yi bañ ko tàmbalee léegi ko tàmbalee léegi moo fi ne ñe moo fi nekk yàlla na la yàlla dëgëral yàlla na la yàlla gën dëgëral amin ya di gërëm bu baax ne di gërëm bu baax nag cheikh modou fadal mohamadou fadal kuma encouragé ne ku encouragé serigne assane ci liggéey bi ci liggéey bi chaque jour ne chaque jour téléphone ma ngi ñëw ci man téléphone ñëw ci bul taxaw bul taxaw defal defal nangam nangam nangam nangam nangam ba démb nag ba démb rek sëñ Fallou jërëjëf sëñ Fallou kan jërëjëf da nga xam ni rek ne na xam ne yow yaw sëñ Aliou nu boole ne sëñ Aliou moo nu noo fi ne no noo juddoondoo fii. no noo demandoo daara. noo demandoo daara. noo bokk it. noo bokk it néegi néegi ndey. néegi ndey. jef kan. jef kan. di geureum sarak yu bax ne di geureum sarak yu bax yi Cheikh Abdoulaye Ahab. Cheikh Abdoulaye Ahab nak yalla yalla fay yalla ne yalla fay la kan. day sama fete ne da ngay fete seigne Modou ngi ni seigne momadou jay Kala ngi ni man mi la top ne seigne Assane ne man la top mako jele fi bu yobuko ci ne mako jele fi yobuko ci dalal ko dekkal ko. dalal ko dekkal ko. te no bokku wajur. te no bokku wajur. di geureum bu baakha baax. ne di geureum bu baakha baax. سيغ ماي مي سيغ ماي امول موروم امو موروم ليغي كات يخمن نكو كان جالو ليغي كات يخمن ني امو موروم سيما دو مانكي سيما دو مانكي فير دو مانكي فير دو مانكي لوني سوخلا ني لون سوخلا مومي واتي تاخو ني يا تي تاخو بام نيو يالا فايلا يالا يالا فايلا بجاي خادم رسول بجاي خادم رسول سيغ داوودا ني سيغ داوودا جزاكم الله جزاكم الله sët yëpp nag. nee sët yëpp nag. tabarkalla. nee sant ni ma joxe boppam. ni na. nee ëpp na nag. kan. jërëjëf kan. na yàlla dëgëral te wéral la. yàlla na yàlla ba tey jii daa bàyyi otoom. mais ba tey ñëw cee fekk si ma. ñëw man. ànd ak moom. jasakalaa xayra di sëñ Baye seex mi. mais kii di sëñ Baye Cheikh mu bàyyi sëñ Mor Kane. rek maa ngi toog moom sama saal. mais sama saal. da ko wax liggéeyu baayam di ko wax sa liggéeyu waajur ko dama ko fàtte ne da ko fàtte dafa la woon dinaa indi leetar yi dafa waxoon dinaa indi leetar yi ma sa baay bind sunu waajur 1975 la gën a ne sunu waajur bu baax ko Seydina Aliou Kane 1975 la dem ko defal lam ko defal ne sëñ Touba ko defal lam ko mi wuutu ko sa waajur sëñ Moor wuutu fa maam ñeent fukki ak juróom benn ñeent fukki at ak juróom benn wàcc wàcc sëñ bi mu baax mi yàlla a yàgg toog daa ma daan wax toujours Baye Sëñ Mor. ñeer Baye Sëñ daan wax Sëñ toujours ni ko. fokk nga wut barab mbaaleen. fokk di nga barab mbaaleen. ma ne ko ma ne ko. liggéeyal leen rek laa soxla. ñee man day liggéeyal soxla. soxla moo fi leneen soxla moo fi leneen. dem na ba. dem na ba. fii Sëñ Aliou kenn dëkkoon. fii Sëñ Aliou dëkkoon. mu bind kayit. mu bind kayit moom Sëñ Mor. def ci rek signature am. def ci signature am. ni ma na ko féetewoo. woo ma na nga ko këyit waa ngi sama sama sama sama oto. këyit yaa ngi sama oto. yàlla dugalul. yàlla dugalul. diirub lim fii ne. diirub lim fii koo liggéey. ma mën koo liggéey. bi mu demee bay wàcc liggéey. bi mu demee ko moom mii. mu bartale ko moom mii sëñ Cheikh. barab bii. barab bii. barab bi nag. nee barab bi nag. tur dafa wuyu morom. nee tur. dafa wuyu borom. wane ko maam bu sa la woon. nee wane ko maam bu sa gëy la woon. yaa ngi bu ñu daan wax sëñ Aliou yaa Bassi geey bu ñu daan wax sëñ Aliou yaa Bassi geey da daan bay toolu Bassi sama yaay daan bay tolu Bassi lu Bassi ba toll ne lu Bassi ba mu jox ko mu jox ko sama bay sama bay fi la ko doon bay ne fi ma tabax sama kër gi la sama waajur daan ne yàlla kon do asa kon kon loolu yàgg na ne loolu yagna na Aliou dem na sëñ Aliou dem na mam jaara bu sa dem na mam jaara dem na sama wajur sama wajur boy genn Thiès ne boy genn Thiès boy genn Mbalène boy genn Mbalène joxana fa nangami million joxana fa nangami million ngir wut fa bar ngir wut fa bar mu am ay yëngu-yëngu. nee mu am ay yëngu-yëngu. nu bàyyi ko nu bàyyi ko waajaat ko. nu waajaat mu tëdd na. mu tëdd ma bàyyi ko ma bàyyi ko nekkate booba. nekka nekkate booba liggéeyu mag ñi. liggéeyu mag ñi du la sàq sëñ Aliou ne woon. nee fii la sàq sëñ dina Aliou kan ya nekkoon. fii la toolam yi ne woon. nee fii la toolam yi ne woon. bi mu demee. nee mu demee. moom mi mu wutu baayam. nee moom mii di sëñ Cheikh. mu sëñ Mor moo wutu baayam. ñëw Thiès ñëw Thiès. ni ma bàyyi san

moom nga hmm. fi la nekk muy kër sëñ Assane alxuraan. ne la ko sëñ kan mu baax ma bëggoon def. waaye bi ba suñu borom dogal. sëñ Assane Kane war cee jot. ne fu war def alxuraan. jànkaay alxuraan muy daara su ma ko joxee moom dana mottali sama yéene woo sëñ Cheikh ak Mouhamed Kane ak sëñ Mourou photocopie kayit bi ñett ni ma téel Mouhamed téel sëñ Mourou téel ni sama dund ak sama fekke seen Baye Assane moo moom fii na ko jot fukki at ak lu ci topp sëñ bi soog a génn àdduna kayit yaa ngi ci man ma denc moom laa yónni ma ngi ñëw mais bi ñu ko daggee mais dafa yéeme sax wax nga dëgg mais ni ko sëñ bi daggee woon mais la gaare fii ci maam bi suba teel mu ni yàlla moom bakkan moom moom roo heure bu ko neex lay jël xaw ma suba waaye naa defar sama gannaaw ba teew ba ñu jib maggaar sama tu fii ci maam mu wàcc ma tegal ko pilaan bi mu toog ab goj lan doon natte fii sëñ bi dëkkee naan ma nattal ni ma natt mu ni ma ñaari parcelles yii sëñ asana ko moom fii daara fii kër barakallah ñi ma gaar ñi ma këyit yaa ko borom dëkk bi mu ma may dégg. bi amee ay wax. mais bi mu amee ay wax. ba woo sous préfet. ba woo sous préfet. moo fee ñëw. war fee ñëw. monsieur le fee ñëw. dan maa woo suba teel. ma woo bàyyi laat. ak Mouhamed ak sëñ Mourou. leen jiitu leen ma. damay soog waaye bu leen def bu leen def te ñëwuma. ba ma ñëwee. kii bi nga xam ne ndawul buur la ñëw fi. bi mu ne daam këyit bi mu ne daam ma ne ko waaw ma ne ko ma xool ma ko mu xool mu ne wax ma dëgg de noo ko bëggee ma ne ko daggal ma ko dagginu jub taxaw ne li mu dagoon ak li sëñ bi dagoon ne dara topput ne xam kon lii ne law ko dom yàlla na ko muurloo wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Cheikh Kane moom sëñ Mor Kane kàddu yi rafet na jot na mat na yàlla na yàlla dolli la waaw sëñ sëñ Gora Kane waaw ñu koy sant bu baax sëñ Gora Kane baax mi nag. ne loolee nag. moo tax ñu tabax fi néegub yàlla. ne moo tax nag ñu tabax fi nag néegub yàlla. war ko ubbi léegi. war koo ubbi léegi nag. tabax fi daara. tabax fi daara noppeegun ci noppeegun ndax am na ñu war a nekk fii ndax am na yu war a nañ njaboot goo xam ne am nañu njaboot goo xam ne ci kër gi lañ bokk kër gi lañ bokk sant kan sant kan ay afisi alxuraan lañu ay afisi alxuraan lañu ba nopi ba nopi ay borom xam-xam lañu ay borom xam-xam lañu waaw waaw waaw yepp ngeen ni noonu dagge won ko waaw waaw boo toogee wéet li ma ni ci loxo boppam moko ko dindee waaw waaw dara maa ngi tuuti ndeysaan jërëjëf kan yëpp ngi nii ndeysaan yëpp ngi nii baax na <laughs> ndeysaan ndeysaan hmm? bu sobe yalla ne bu sobe yalla imam musa Mbeng imam musa Mbeng chef de village magay chef du village Magaye Gueye ak ñu dëkk ci dëkk bi ak ñi ci dëkk bi ak tund wi ak tund wi su ngeen bëggee ne su ngeen bëggee tund wi tund wi ak ñi fi nekk ñëpp dañu réer ñëpp dañu réer xam seen farata ci yàlla xam seen farata ci yàlla xam seen i sunna xam seen i am nañ bagage yi am nañu bagage yi nag ñu mokal alquran ñi ngi nee ñu mokkal alxuraan ñoom bi ñii biig lañ jógee Mauritanie nee ñii toog biig lañ jógee Mauritanie nañ ci dekk bi lu ñu war a ci xam-xam jàng nañ ci dekk bi lu ñu war a ci xam-xam def nañ Mauritanie juroom ñetti def nañ juroom Mauritanie juroom ñetti di jang xam-xam di jang xam-xam fii lañu jëm ci nee fi lañu jëm ci ci bàkk bi ku bëgg xam sa diine ne ku bëgg xam sa diine ni yalla ni ni yalla ni na nga ma xam dog ma jaam na nga ma xam sok may jaam bo ma xamul bo ma jaamoo bo ma xamul bo ma jaamoo jaamu ko baaxul ku len xamal ne ku len xamal amna fi amna fi ak yeneen. ne ak yeneen. yoo xam ni. yoo xam bëgg nañu mbaa leen am ko. bëgg nañu mbaa leen am am na ci loo xam ne am na ci loo balaa la diis. balaa la diis ngeen ci xam dara. di ci xam dara incha allah incha allah. ku nekk li nga mën rek. ne ku ci dëkk bi ci dëkk bi indi ko indi ko. ku mën a taxawal benn garab. ne ku mën a taxawal benn garab. ñëwal taxawal ko ñëwal taxawal ko. waaye ku am leneen. waaye def leen ko man lu ma am dinaa ko indi. man am danaa kon ñu ngi gërëm liggéeykat yi. mais kon ñoo ngi gërëm liggéeykat yi. Seyna Ousmane Thiam ñoom ñi Seyna Ousmane Thiam ñoom. ak équipe bi mu bi mu àndal. fukki chef d' entreprise. fukki chef entreprise. ak juróom ñet ak juróom-ñett. ñoo liggéey liggéey ñoo liggéey liggéey bii. ñaari weer. ñaari weer. boo noppee ñu ko. boo noppee ñu cité ko. liggéey. mais li ñu liggéey. dem na ci soixante dix millions. def na ci ñaari weer ci ñaari weer. bu dul woon mbooloo du a sotti. mais bu dul woon mbooloo liggéey bi du sotti. kon ñu koy gërëm bu baax. koy gërëm bu baax. Serigne Mouhamadou Sarr. Serigne Mouhamadou Sarr. ak ñi nga xam ne ñëpp wàllu courant la ñuy ak ñi nga xam ne ñëpp wàllu courant la ñuy def. ak wàllu premier. ak wàllu premier. maa ngi leen di sant maa ngi leen di sant. Serigne Assane Karleer. Serigne Assane Karleer. mi karo mi karo. ak ñi ma ak ñi ma àndal ñëpp. yal na yàlla fay leen. yal na yàlla fay leen. liggéey bi rafet na. liggéey bi rafet na. Serigne Pape Faye. Serigne Pape moo yore wàllu armignon ci bâtiment bi. ci bâtiment bu dee ci jàkka ji. mais bu dee ci jàkka leen di gërëm. ñu ngi leen leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. ñu ngi a baax. Baba Seck sëñ sëñ ma Baba Seck sëñ ma Baba Seck koy sant bu baax nu ngi koy sant bu baax di ko gërëm sëñ Mokhtar Gueye sëñ de mbooloo mi jëwri ni mbooloo mi moo toog nii moo toog nii Cheikh Mokhtar jàmbaari lislaam lool lool di sama Baye Fall di sama Baye Fall maa ngi lay sant maa ngi lay sant yaag ñi nga àndal yaag doole yëpp def ngeen ko ñee doole yëpp ñi ngeen am def sëriñ Baye Demba Diop sëriñ Baye ba liggéey bi tàmbali ba njabootam ab lay Ablaye ab Ablaye Diouf. moo yore wàllu peinture. moo yore wàllu peinture bi. ngeen duggee ci biir di ngeen ci yéewu ngeen duggee ci biir gis lu rafet loolu la yàlla na yàlla fay la ñoom sëñ Assane Ndiaye ñoom sëñ Assane Ndiaye ak ak Bolle ma ci tudd ku ne ku ma sa mbooloo bopp nga yor sa boo wéetee boo wéetee da nga yor sa entreprise bopp nga yor sa entreprise laa fi dajale ñëpp laa ñëpp ñoom ñëpp ci man lañ jébbu man leen woo leen ngeen bàyyi lépp ngeen bàyyi lépp fekk si ma fekk si ma jërë ngeen jëf jërë Ibrahima Thiam moo féete woon moo ji jumaa ak mbo ak mbooleem ñu àndal ak mbooleem ñu àndal ñu koy gërëm bu baax ñu koy gërëm bu baax Baye Fall Ndiaye Baye Fall Ndiaye mii noddukat Baye amul morom ne Baye Fall si asan ne amoo morom sama kër laay toog ca saal ba ne fii ci caméra yi. ci caméra yi. kenn mënu ko. mais kenn mënu ko. Baye Fall sant naa la gërëm. mais Baye Fall sant na la gërëm mooy jànkatu kër gi. mooy jànkatu kër gi. waaye moo nekk diggante Thiès ak fii. waaye moo nekk diggante Thiès di leen gërëm bu baax. mais di leen gërëm bu baax a baax. waa dëkk bi nag. waa dëkk bi nag. bàyyiwuma kenn. bàyyiwuma kenn. Badiane. Badiane. Guèye. Guèye Diop Diop. ndeng ndeng ak ku doon ak ku sama xol seet na ci yéen bu nee nañ maasale dëkk bi ne bu ñëpp jóg ñëpp jóg bu nee nañ bale bu nee ñëpp ñëpp jóg dañoo sawar ci sëñ Assane dañoo na sawar ci sëñ Assane soppay soppay moo nekk ci biir jàkka bi ne moo nekk ci biir jàkka bi di ko décorer di ko décorer su fi duggee suñu fi da ngeen yéemu ci moom ne dinañ la yàlla sa loxo yàlla na yàlla yoral sa loxo tamay la kattan tamay la kattan barke sëñ Touba barke Uh-huh. ñoom Adja Soda Dieng. ñoom Adja Soda Dieng. mag mag sama yaay la. ne man de sama waajuru jigéen la. mag la mag la. ku dund ba am juróom-ñaar fukki ne ku dund ba am juróom-ñaar fukki la nga jàppoon mën nga caa jàpp. la jàppoon nag mën nga ngeen baal ma. nee ñu baal ko. doon taalibe seex. gis ma ci télé bi rek. gis ko ci ni damay jébbalu ji ci moom ni maa ko def murit man nii maa ko def ab murit motul weer motul weer mboolem mukkat yi fi ñëw moo ko jënd moo ko jënd basan yi yëpp basan yi yëpp moo ko fendi moo ko fendi yàlla na la yàlla fay yàlla na la fii fii Firdawsi laa ko tudde Firdawsi laa ko tudde yéen yéen waa Mbaaleen ngeen dëkk yéen Daaru ñii dëkk Daaru man àjjana laa dëkk man kon waaw kay yaay mati jërëjëf yaay mati jërëjëf waaw kon ñu sant ñoom ñëpp ñee ñu sant ñëpp soxna Fari Ndiaye amul morom soxna Fari Ndiaye sëriñ bi nee amoo morom ci suba maa ngi koy gis nee ci suba ma xam nga tarbiya. xam nga tarbiya dafa baax ci taalibi. dafa baax ci ab taalibi. li ñu ànd bari na. nee li na waaye yitt yi ma la teg. waaye yitt yi ma la teg. musuma la kër gi yaag loo am. seeti ca donga ya. seeti ji ca donga ya. di leen toggal. di leen toggal yaag maam Fatikan. yaag maam Fatikan. soxna di jàppale. waa dëkk bi ku togg. ku togg yàq naa lépp. ñii abonné leen mburu ñii abonné leen mburu yëg naa ko chaque jour chaque jour fukki mburu ñëw fukki mburu ñëw keneen noonu keneen noonu keneen noonu lépp yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla fay leen ak sëñ Mohamed Kane ak sëñ Mohamed Kane alayhi wa sallam ak sëñ Modou sëñ Modou waaw Adja Wari Touré Adja Wari Touré moo warlul boppam moom dafa warlul boppam moom dafa dégg tele bi. nee ci télé bi. teen bu ñuy gas fii. teen bu ñuy gas fii. mu ne na ko moom. mu ne moom gàddu na teen ba. jàppukaay yi. jàppukaay yi. na ko ba noppi. financé na ko ba noppi. carnet bee yeex. carnet bi moo xaw yeex. waaye ñu ngi ci. waaye noo ngi ci. yi nekk fii. yi nekk fii ak yi nekk ci biir daara yi. ak ko yàlla fay. yàlla na yàlla fay la. barke Sëñ Tuubaa. barke Sëñ Tuubaa. soxna Coro. soxna Coro. Ndiaye. soxna Maris. mi ngi nii toog. mi ngi bu am jom sëriñ bi ne xale bu am jom ni te jàmbaare te jàmbaare gis sëñ Assane rek ne gis sëñ Assane rek ci écran géant rek écran géant jébbal ma boppam jébbal ko boppam fab jëkkëram fab borom këram andil ma indil ma ñu bokk ñoom ñaar ñoom ñu bokk ñoom ñaar dénk ma seen jëm dénk ma seen i jëm lu mu am lu mu am yónnee ko yónnee la Mamor waaw Mamor Karolène mii Mamor Karolène mii Mamor jërëjëf Mamor jërëjëf yonent dafa waxoon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa kullu taahirun taajirun taajirun faajirun faajirun siwa Babacar Sadiq siwa Babacar Sadiq yonent bi dani yonent bi dani jaaykat yëpp jaaykat yëpp ay naafiq lañu ay naafiq lañu lijjanti leen loolu lijjanti leen loolu man la doon jaaykat ba ñëpp tiit nag ba ñëpp tiit nag mu budul mu budul ku mel ni Aboubacar ku mel budul ku mel ni ku lan mooy jikko Aboubacar lan mooy jikkoy Aboubacar li mu war a jar lay jar li a ko jënde lam ko jënde day ni nangam laa jënd day ñëw ni du ñëw nangam laa jënd nangam laay jaay nangam laay jaay du war mukk ne du war mukk du jaay lu bon ne ko lu baax tudde ko wala mu jaay lu baax wala mu jaay lu baax wàññi wàññi bi wàññi poids ba noppi yokku prix ba noppi yokku prix Aboubacar du ko def ne Aboubacar def loolu Aboubacar mooy jaay kat Aboubacar mooy jaay kat du war jaay jënd kat ne mooy jënd Omar mooy jënd kat du war du war jënd kat du war jaay kat du war jaay kat moom mii. moom mii. jikko jooju laa gis ci moom jikko jooju laa gis ci moom. léeg-léeg léeg nga soxla wëlooru nangami million. léeg-léeg million. mu irsan. mu doon jam. danaan Assane ñëwal jël. danaan Assane ñëwal jël rek. jërëjëf. jërëjëf. ba fii nu toog ba fii nu ay bagaasam a ngi ay bagaasam ma ngi ci biir daal. yàlla na yàlla fay la yàlla na yàlla fay la. wax kay sëriñ Mamadou Diop. nag dafa dafa yokki bagage. mais kër gi nag dafa yokk ay dafa am séedoo. nee dafa am seedoo nag. moo nekk nii moo nekk nii ñuy liggéey. ay seedoo am na ci miir bi am na ci biir kër gi am na ci miir ñi ko xamul. ñi ko xamul. boo demee ci piscine yi. boo demee ci day dindi stress. day day faj. am na yu ñu ciy def. am na yu ñu ciy boo nekkee ci wetam. boo nekkee ci feebar bu nekk ci yow. feebar bu nekk ci yow. da koy dindi da koy dindi. Mouhamed Diop. Mouhamed Diop mii toog. anam mu ngi nii toog mi nii. moo moo ko yore. moo ko yore. yal na yàlla fay la. yal na yàlla fay la. jox naa la rendez-vous. ne sëñ Assane ne jox na la rendez-vous. Firdawsi Firdawsi. fa la séddoo yi ëppee. ne fa la yi ëppee. waaw Ibrahima Kamara. Ibrahima Kamara. Kamara Kamara. Ah, Ibrahima Kamara. moo yor yooyu. ne moo yor yooyu. fii ne. fii ne. Eh, boo nekkee ne bu nekkee Thiès. boo boo taxawee sa buntu kër la. moom moo ko yoral boppam. mais moom moo ko yoral boppam. foofu ay bagaasam indi ko yal na yàlla fay yal na yàlla fay la. Mamadou Thiam moom laa waxoon léegi. Mamadou Thiam moom laa waxoon léegi. safoor laa. Mot Thiam safoor. kenn du moom. mais kenn du yow. nit mën naa jébul ba noppi. mais nit am loolu ci ci seen jëbbal. am loolu ci nag na ma ni. sëñ Assane nee na na ko su ma a rendi nit léegi léegi léegi léegi léegi moom dina tëdd nee mu tam ciy fekk nag man maa xam lu ma ciy fekk nag man si Assane ko xam waaye moo Baye Sall Ndoye mii moo Baye Sall Ndoye yàlla yàlla defal leen yàlla yàlla defal leen jàmm sëñ Cheikh Mbacke amul morom amul morom léegi mais boobaak saa yu mbooloo mi tollee nii saa yu mbooloo mi tollee nii ba tey jii ba tey jii mooy togg añ bare bare bare añ ñu bare bare bëgg leen koo jox bëgg leen naa sax am na ñu jiitu jàpp naa sax am na ñu jiitu waaw solaire bi. waaw Babacar Ñaan. Babacar Ñaan. bi ma waree def solaire. bi ma waree def solaire. ngir courant bi. ngir courant bi. andi na boo xam ne. indi na moo man courant bi. moo man courant bi. ndax courant wu Mbaline. ndax courant Mbaline. dafa faible. dafa faible. defe naa cent dix sept. Mhm. cent dix sept moo fi nekk. moo fi nekk te courant baa ngi war a doon deux cent vingt. te am na sax lu ma ci dox. am na lu mu ci dox. war koo yokk. man war waaye courant bi dafa faible. moom moo indi salaire bi moom moo indi salaire bi. dem naa ak waa Sénélec. dem naa ak waa fan yii ñëw nañ fi fan yii. dëkk bi wër dëkk bi. ba ba wax ne nangami poto. wax ne nangami poto ak benn central. ak benn war a andi. a indi dañ ma waxoon sax talaata bii ñëw. dañ ko waxoon wax la ñoom. waaye ñoom day ko def yàlla nañ ko def bi dëkk bi. ñàkk bi. gën a yokk. courant bi gën a ba dëkk bi gën a leer. ba gën a dëkk bi gën a leer. ñaan yàlla ko yàlla ko. waxoon naa ko yaayam na ko yaayam yep moko ko jënd ci xaalisam yep moko ko jënd ci xaalisam muy millions yu bari muy millions yu bari ñëw def ko fi ñëw def ko fi sëñ Fallou Dieng sëñ Fallou Dieng safoor safoor camion camion yalla ko yalla fay yalla na yalla fay la ak mboolem ko mu àndal ak mboolem ko àndal barke sëñ Touba barke sëñ Touba mhm. soxna maam Boussa Sëy soxna maam Boussa Sëy sëy liggéey sëñ Touba sëñ makhtar a ngi nii sëñ Maxtaar a ngi nii toog bu ma compté jox sëñ saliw buma konté lima jox sëñ saliw ci ayna juróom fukki nag ak juróom-ñett la. juróom fukki nag la ak juróom-ñett. at mu ne. nag. ñeenti ay xar. ay xar ay bëy. ay bëy danaa ko fi toog. diirub li mu fi nekk. xidmatul xadim laa ko doon laa ko doon liggéeyee. sëñ Baara. sëñ Baara. fukki nag ak benn ngeen ko jox fukki nag ak benn lañ ko jox Cheikh Sidi Mokhtar suñu Cheikh Sidi Mokhtar def naa ñaar fukk ak benn ñaar nag ak benn sëñ Muntaxa lool weesoogun nañ lool daayira liggéey daayira ko liggéey muy ñoom ñii mooy ñun ñii ñooy waa Xidmatul Xadim ñooy ñooy magal gu jot mais magal gu jot daan dajale fanweeri million daan dajale ko ci magal Touba yemale ko ci bu ngeen duggee ci site yi bu ngeen ko gis di ngeen ko gis juróomi at. nee ko xaw ma. nee sa ñaata nee xaw ma ko addi juñ fi loxo ma ngi. addi addi juñ fi def rek loxo ba barki démb. nee ba barki démb. man ma luy jot jot na. damay ub sama kër. ñëw jébbalu si. ñëw jébbalu si. sëñ Saliou ma waxoon. nee sëñ Saliou moom ma sa jëf. sa jëf. lañ njëkk xam. lañ njëkk a sa jëmm. sa jëmm booba sëñ ma sëñ Mamoor Mbàkke Dédé. booba sëñ Mamoor Mbàkke Dédé. sëñ Naar Jenn. sëñ Naar Akim. ak benn sëriñ fa fa ñuy waajal Masaalikul Jinaan bu njëkk ñuy waajal Masaalikul Jinaan bu njëkk ak jumaay sëñ Cheikh Saliou ji ak jumaay sëñ Cheikh Saliou ji booba sëñ Abdou Samad da ko yor booba ak sëñ Fallou Asta Dieye ak sëñ Fallou Asta Dieye bu mu doon def ca Sanosi bu mu doon def ca ak bii ak bii juróom lañu woon ne woon mel nu man nag mel nu man sant naa sëñ Saliou sant naa sëñ maa ci eggal maa ci ci kanamam ci kanam sëñ boobaag léegi maam bu sa ñu lay sant. mais boobaag léegi nag maam loxo. démb la ñëw jébbal boppam Serigne Touba. démb la ñëw jébbal boppam Serigne Touba. Soxna Kumba Fall. Soxna Kumba Fall. waaw soxna Coro moom laa doon wax rek ak soxna mama mi nekk Pout. ak soxna mama mi nekk Pout. màggalu suñu Aliou Kane gii ñëw. màggalu suñu Aliou Kane gii ñëw. lu mu fi waajal ci ndawal. mais lu mu fi waajal ci ndawal. kenn xamul lu mu toll. mais kenn xamul. mama yàlla na yàlla fay. mama yàlla na yàlla fay. madame Konaté. madame Konaté. moo nekk nii. moo nekk nii. maa ko dugal ci lislaam. mais moom day sëñ bee ko dugal ci lislaam. soxna Faagay mooy ki nga dendal. soxna Faagay mooy kooku nga dendal. waaye bi bi mu duggee ci diine lislaam. mais ba mu waaye ba mu duggee ci diine lislaam. lu mu mën mi ngi koy def. mais lu mu mën rek maa ngi koy def. bokkam yëpp bokkam yëpp moo ci musulman moo ci musulman rasulaay rek a wóor rasulaay rek a wóor soxna yow ma mee ne soxna yow ma mee borom këram borom këram beneen yoon la bokk beneen yoon la bokk maa ko dugal ci yoonu Sëriñ Tuubaa maa ko dugal ci yoonu Sëriñ Tuubaa moo ni mbooloo mu bari nag mu di mbooloo mu bari jóge Dakar jóge Dakar lu mu am def na ko fi lu mu am def na ko na leen yàlla fay na leen yàlla soxna maam say kàngi soxna maam say kàngi barki démb dafa ma ni laajal ma sëñ xaadim lu may joxe laajal ma sëñ xaadim lu may joxe damaa fas yéene di jëf ba faaw damaa ba faaw mi ngi ci mbooloo mi toog mi ngi ci mbooloo mi ko yàlla fay yàlla na yàlla fay la soxna paya soxna paya moom yaay Fall la. ne kooku day yaay Fall la. ku bëgg jaamu yàlla. ne ku bëgg jaamu yàlla. bëgg sëñ Tuubaa. bëgg sëñ Tuubaa. te gëm sëñ Saliou Mbacké. te gëm sëñ Saliou moom rek la ma toppee. ne man loolu ma ba mu xoolee télé bi. ne ba mu xoolee télé ma tudd sëñ Saliou. la dagg lépp. la dagg lépp di ma ba aussi ci ni ma damay yow. ni ma damay la ko seereel. sëñ Maxtaar maa ngi lay seereel. loxob mi. maa ngi bu baax. Sonu Chaba waaw waaye ñoom ne ñu bari ne ni bu tuddu tudd seen tur yi ñu nekk Amérique mo tax ma wax rek wa Amérique. ñi nekk France. mo am ñi nekk France ñi nekk Italie. ak ñi nekk Italie. ñi nekk Espagne. ak ñi nekk Espagne. ñi nekk Canada. ñi nekk Canada. Arabie Saoudite. Arabie Saoudite ak Suisse. ak Suisse. Allemagne ak Angleterre ñëpp maase nañu ñëpp maase nañu ànd ak man ànd ak man di liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla na yàlla fay leen soxna Mariam bëgg Bamba soxna Mariam bëgg Bamba mu nga ca Amérique ne ma nga ca Amérique ba bi may ñëw ne ba bi muy ñëw ne sa gasoil ne sa gasoil yow sëñ Assane maa ko yor maa koy te kenn mënu ko ci xamal ko fàtte kenn mënu ko ci xamal kon sant naa ko bu baax a baax imam Moussa jërë ngeen jëf imam Moussa jërë ngeen jëf yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla fay leen tàngi alxuraan yi ne tàngi alxuraan yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla fay leen jànkati xasida yi jànkati xasida yi yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla fay leen barke sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul Abdou Aziz Abdou Aziz jasaakumulaa xayra jasaakumulaa na yàlla yokku leen yàlla yàlla yokku leen suñ télé suñ télé Sénéco Média bi bi à travers dans le monde bari na ñu xam mais bari na ñu ma xam nag Sénéco Média moo tax na ko yàlla yëkkati yàlla ko yàlla gën a yëkkati euh, Nasrul Média TV nga xam ni mooy télé kër gi nee mooy soxna umu xayri daraame. soxna umu xayri daraame. defuma defu ci dara. télé bi yëpp moo ko financé moom. télé bi yëpp moo ko financé. ngir sopp sëñ Assane. ngir sopp sëñ Assane. yàlla yàlla fay leen. yàlla yàlla fay leen. man. ne moom. suñu borom dafa maa defal. rajo moom da koo Sey. journaliste la ne journaliste la ba noppi dafa kilifa kilifa waaye damaa jébbal boppam bu ñëwee fii doo xam sax ni ne bu la nitu presse la day laxasu day laxasu mu nga ca wàññu mu nga ca togg ya mu nga ca xott ya soxna yëpp soxna yëpp moo leen di sonal moo ko yàlla fay yàlla na yàlla fay barke sëñ Tuubaa barke moo nekk nii en direct moo nekk nii rajo Dunya yàlla fay yàlla na yàlla fay leen

douze mille salaatu ala nabi. douze mille salaatu laa ilaaha illallah. douze mille xale bu jigéen. te xale bu jigéen. te musuma julli. ne te musuma julli. daaw ma woor ku bañoon samay waajur la. ku bañoon sama yaa ma defar. waaye yow yaa ma dimbali. ba ma ba ma loolu. ma mën loolu ay waajur ànd ak moom. ay waajur ànd ak moom. ni ma may nañ la ko. may nañ la ko. ñooñu ñoo man ay jàmbaar laa àndal. ne man ay jàmbaar laa àndal de. sëñ Jibi. ne Jibi. ñaar rek am. ñaar rek am. maneel. maneel ak ngëneel. ak ngëneel. taalibe bu la gën sëriñ. nee taalibe bu la gën sëriñ. moo la moo la waaye taalibe bu la mën i taalibe. waaye taalibe sëriñ bu la mën ay taalibe. moo la la mën. Ah, samay taalibe fi man. samay taalibe fi man. loolu ma sëriñ Tuubaa defal. sant naa leen ñëpp. naa leen yéen ñëpp. gërëm naa leen gërëm naa leen. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. ñoom Maodo. ak Seydina. ak Seydina. biig laa leen laa leen ni. xaw ma ban entreprise génne. xaw ma benn entreprise génne. boo leen jiitu mbaleen. bu ma leen jiitu mbaleen. suñu jarbaat bu baax bii. suñu jarbaat bu baax bii. Abdou Faye jërëjëf. Abdou Faye jërëjëf. nu bàyyi lépp. nu si soxo. si soxo la. la waaye yéen ñi ci nag. waaye ñun ñi ci des nag. jaxate café. jaxate café noo maa ngi leen di jox rendez-vous. maa di jox rendez-vous. samedi suba bu delsee. samedi suba bu delsee. mooy màggalu mbaleen. mooy màggalu mbaleen. na dëkk bépp fees. na dëkk bépp fees. ak xéewal. ak xéewal ngeen di berde rek. ñun ñuy berde rek. sëñ Saliou berde la santaane. sëñ Saliou berde la santaane. te nun lu am. te nun lu am. sëñ Aliou mooy suñu waajur waaye sëñ yëngal na ci lu bari xam ngeen lool xam ngeen ngeen jëf jërë kon na nga na nga na nga noddu kon na nga noddu ana Assane Serigne Assane waaw ñu julli waxtu wi jot na ñu julli waxtu wi yaay jiite jumaa yi yaay jiite jàkk am na rek tuuti am na rek tuuti sëñ Baye Cheikh mii sëñ Baye Cheikh mii baayam dama leen dënkoon dénkoon seen baay sëñ Mor Kane dama leen a dénkoon moom mboolem njabootu biir këram. mboolem njabootu biir këram dama leen déggoon. ci mujjam. ci jëm moo ma wax ni ma. moo ma wax moom sëñ Mor ni ma. ni nga ma yaakaare woon topp ma. ni nga ma yaakaare woon topp ma may sa sëriñ. tey fii ma toll. tey fii ma toll. noonu laa la yaakaare. noonu laa la yaakaare. na nga ko. nooy def. nooy def. man ko la la xam ne fu la neex yóbbu ma mu ne ma yow day sëñ Assane fu la neex la yóbbu ma jëlee ko fi yóbbu ko Dakar ma jëlee ko fii yóbbu ko Dakar di ko faj ba mu wér di ko faj ba mu wér mu dellu si mu dellu si ñu teg ci ay at ñu teg ci ay at la ñëwoon ñëwaat la ñëwoon ñëwaat mu woowaat ma mu woowaat ma moom mi wax na ma woo moom mi wax na moom la wax ni ko woo moom la ko wax ni ko wol wuy juróom wuy juróom maag Assane Fall mii maag Assane Fall mii suñu loxo la doge suñu loxo la doge kooku mënu ma koo fay ne kooku moom sëñ Mor moom xalaatuma koo fay. coba dee ci wàllu deret. mais bu dee ci wàllu deret. maay seen baay. maay seen baay. bu dee ci wàllu sëriñ. waaye bu dee ci wàllu sëriñ. man ngeen jébbal seen bopp. man ngeen jébbal seen bopp. waaye da ngeen di sama xarit. waaye nag da ngeen di sama xarit. moom mii may naa sama doom. moom mii may naa sama doom. soxna ndeykan mii. soxna ndeykan mii. jox naa tay tay tay. tey. jox naa ko tay tay tay. tey tey tey. bu kiyee nga xutba ko. nee bu kiyee nga xutba ko. enveloppe bii. nee enveloppe bii. jox ko. yokkoo téeméeri junni ci ne moo ci ne may naa la soxna ndey may naa la soxna ndey may naa la téeméeri junni koko cane koko top may kooku léegi ah wax bi wax na sax amin amin Baye sëñ Mor waxoon ni Baye sëñ Mor kan mu baax ma da ko waxoon ni ko te salaatu naar ya fal naa la fal naa la ci ñaan gu ñu nangu ci ñaan gu ñu nangu loo ñaanati mu nangu loo man ku ma ñaanal mu nangu man ku ma mu nangu ñi ñëw sama kër xam nañ ko mhm. benn bërigo laa yor sëriñ bi daa wax ni moom benn bërigo la yor di sang junni nit di ci sang junni nit. man awma ay musallas ak murabba. mom amul ay musallas ak murabba. fatia kep lay bind. fatia kep lay bind. te kuma sang saa ju te kuma sang saa ju bay seigne sëñ Mor ma ko xoon. bàyyi sëñ Mor ma ko fal na la yow. neena seigne khadim fal na la yow. barke seigne touba barke seigne touba barke seigne ali barke seigne ali lo duggati di ko dal lo duggati di nga ko daan. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين برم نصر الله دين جاء